Eh, waaw magal gi wàccaay bi ñu ko commencé yàgg na. Mhm. ndax euh, li commité d'organisation bi bi ñu commencé daje moom def na ay weer. fi may waxee ni tembe mboolem plan d'action commission yëpp tënk nañ ko ba mën naa ne ci fànn googu commité bi euh, pare na. def nañ lu mat euh, ñetti ndaje def nañ CLD defaat beneen CDD def CRD à Diourbel su ko ñëw fii ci CRD national bi nga xam ne barki dem lañ ko def. bi ñu ñëwee aussi ci CRD national bi ci évaluation yi nga xam ne moom lañu def euh, nee nañu on est en taux de presque 78 pour cent 77 virgule 95 pour cent ci li nga xam ne moom la ñu digg woon ci màggal gi. bëkki démb bi ñu def évaluation ak gouverneur Diourbel. Mhm. fi ñu toll nii foofu la ñu toll. Euh, màggal gi li ci des ñaar fan ak lu ak lu topp la mënatut euh, mënatut weer. jàpp nañ ne bala ñoo àgg ca ca évaluation ba nga xam ne dañ koy defee Touba su ma see lu lu tollu juróom-ñetti fan xañ ne balaa booba mënees na ne li ëppoon ci li nga xam ne moom lañu waroon def ci biir màggal gi lu ci bare bari dana dana dana sotti. Mm-hmm. nekk ci magal goo xam ne day màgg dugg nawet. nekk ci màggal goo xam ne aussi tubaa de day jànkoonteeg ay jafe-jafe ndox. donte ña ngi fay def ay forage yoo xam ne fekkoon na fa yu fa nekk nga xam ne li ñu naan li ñu am ci forage dana mat euh, ñeen fukk ak euh, ak benn. Mm-hmm. nar def aussi yoo xamante ne bi ay ay ay bassin de de six mille euh, mètres cubes lay nekk. Mhm. mais teewul rek jafe-jafe ndox moom ba tey ma nga fa parce que réseau bi moo màggat yàqu. réseau ba ci boppam moo màggat yàqu ndox mi lu ci ëpp day seet dem ci suuf boo ñetti litre yoo yoo yoo defar jàppal ne ñaari maag yi nit ñi wala sax dana manqué ñaar benn moom ci suuf la jëm. loolu aussi boole ko taw bu bari bi mhm. mu indiwaat remontée de la nappe di menacer waat yenn construction yi surtout aux, aux alentours de la grande mosquée sur un espace de cinquante hectares mhm. donc loolu lépp di ay jafe-jafe yoo xamante ne ñun ñu ngi koy dund euh, magal gi ñu nar ko def ci biir wax set euh, ndax fi mu nii taw yi commencé wut te yaa ngi dégg ay problème inondation mhm. foofu aussi am na ay liggéey yoo xam ne jot nañ ko faa def mais teewul ba jii quand euh, force est de constater que nit ñi ba tey jii ñu ngi ci biir ñu bari ba tey jii ñu ngi ci biir ndox mi. loolu lépp nañu war ci indi ay ak waxtaan yi ngir ensemble ñu xool euh, en tout cas yenn jumtukaay moom la ñu war a jëfandikoo pour màggal gi euh, demee ni nga xam ne noonu la war a demee ci wàllu euh, organisation. Mm-hmm.